L'air L'Airly TV, la lumière du Coran et de la Sunna. Abonnez-vous. alihi wa sallam di ko ñaanal jàmm moom ak i sahabaam ak taabiina lahu bi ihsanin ila yawmi ddin ramadan shahrul ihsani ila al muhtaj mooy sunu taxawaayu ba tey muy ne weeru koor mooy weeru def njekk waaye jëme ci way soxla yi mbokk jullit yi xam ngeen ni borom bi moo ñu digal ñu def njekk jëme ko ci néew doole yi ak way ittewoo yeeg way soxla yi moo tax borom bi ne na ngeen def njekk mooy te rafetal ndax yàlla day ku bëgg way rafetal yi la borom bi wax na ba tey ne inna rahmatallahi qaribun min al muhsinin borom bi ne yërmandeem day booy xool lu jege la way def njekk yi maanaam ñiy def lu baax ci seen am-am ci seen xam-xam ci seen mën-mën ñooñu de ñuy jege yàlla lañuy doon maanaam booy génn ci sa poos di def lu baax mooy dimbale way néew doole say mbokk say jegeñaale say dëkkandoo walla nga am xam-xam bu leen mën a jëriñ ci di leen jàngal di leen yar di leen jubbanti jëme ko te jirim yaag veuve yàgg ñu mel ni ñoom walla nga am métier bu nit ñi soxla nga cay dimbale maanaam di génn àddaka ca métier ma léeg-léeg am ku ko soxlawoo te mënul te yow nga mën te mën ko caa jàppale nga jàppale ko ca ñooña ñépp borom bi nee na yërmandeem lu leen jege la inna rahmatallahi qaribun min al muhsinin ibadallah mbokk yi jaami yàlla yi texeg àdduna day lu nit bëgg la te mooy teraanga lu ñu sopp la boo laajoon bakkan yépp dañoo bëgg am-am ñépp dañ koo bëgg moo tax mbindeef bu nekk su ca tollee mu ngi dox ci li koy noppal ci li koy dimbale di yokk wërsëgam waaye loolu lépp nag boo seetloo li ñuy tuddee teraangay àdduna ay caabeem ak i buntam mooy mu ragal yàlla taala wa tabaarak te ragal googu du yem rek ci ragal yàlla waaye dafay sàmm wante ak boroomam ci li nëbbu ak li feeñ li feeñ nit yomb na caa ragal yàlla waaye li nëbbu foofu la ragal yàlla jafe kon li feeñ léeg-léeg nit mën naa bañ a moy yàlla ci biir nit ñi nga jàppee ko ko baax te su wéetee mel neneen kon kooka dafa sóorul ni borom bi ci mbooloo ak ci wéetaay yépp la yemale foo munti nekk borom baa ngi lay gis te sa dara réeru ko waaye bokk na ci taxaw ci li yàlla waral ci yow ci ay àqo sa digganteeg moom waaye ak sa digganteeg jaami yàlla yi àq yi nga séq sa borom mooy fexe ba doo ko bokkaale kenn waaye fexe ba li mu farataal ci yow nga taxaw ca moo xam julli la waaye rawatina weeru koor kon bu fekkee ni jaamu yàlla bu nekk am na temps jamono boobu bu jotee la fa gën a rëy mooy jëf-jëf jooja mooy xam ngeen ni ñetti fan moo des weeru koor wi ñëw kon ci weeru koor lu ci gën a rëy koor amu ci waaye gannaaw ga nag mooy say jaamu yàlla nga motal ko ci moytu comme niñ leen ko waxoon ci àjjuma bi passé waaye rafetale ko di génne ci sa am-am di dimbale ñi amut di génn ci sa mën-mën di jàppale ñi mënul ndax xam nga ni yàlla moo séddale te tollalewul séddale ga loolu nag waxi olof la waaye yàlla ku se tollale la mu séddalee la mbokk yi bokk na ci liy taxa tedd nit ci àdduna ak allaaxira mooy ñu bëri sàgganee ko mooy fexe bay sàmm sa ëllëg comme ni ngay sàmmee sa bisub tey jii ndax xam nga ni borom bi kenn ku nekk dafa am sa dikk fu mu yem bu jotee rek la chaque da ngay dem wuy ji ko moo xam suba teel la wala guddi la walla ngoon la waaye kenn ku nekk sa bakkan mi ngi ci loxol borom bi te saa bu ko bëggee jël da koy jël mbokk yi def njekk def lu baax dimbale nit ñi dafa bokk ci li yàlla bëgg ndax alxalqu kulluhum iyaalullah xale bu ndaw bi ba ci mag mi ki wér ba ci handicapé bi ki wér bu ci ki néew doole bu soxlaa ittewoo yow jaamu yàlla bi war ngaa jéem ca la mën di génne ci dundal ay doomu aadama waaye di génne ci dimbale way feebar yi di génne ci dimbale jirim ya waaye di génn ci dimbale veuve ya waaye di génn ci dimbale handicapé ya ak ñu mel ni ñoom fexe nag bay génne ñam wala ngay génn njëgu ñam di ko jox ña nga xam ni ay jaamu yàlla lañ moo tax borom bi subhaanahu wa ci suuratul mudassir nee na waa safara bi ñu duggee safara malaaka yi de dañu leen a laaj ne leen waa yéen maa salakakum fii saqar seen dugg safara bi lu ko sabab malaaka yi nekk safara ñoo leen posé question ndax dañoo nekk safara di xëw di dajjatu di jooyoo di ñaan dimbal malaaka yi ne waaw yéen balaa ngeen ñaan dimbal lan moo leen indi fii ban cause la lu ñu wax qaalu lam naku min al musallin ñun dey wax dëgg yàlla julli daawuñ ko def bokkul woon ci sunu programme waliyaasu billah ndeke kon liy dugal safara mbokk mooy ñàkk julli soo maseuree te doo julli yaa ngi jëm yoonu safara yàlla nañ ci yàlla musal waaye walam nakk nutimul miskin ñaareel bi tax ñu ñëw safara mooy amoon nañu wërsëg amoon nañu xéewal waaye daawuñu lele daawuñu xool ñi néew doole ñu dimbale leen daanañu lekk ba suur ba desal suñuy dekkando duñu lekk nañu lekk ba denc ci frigo yi way néew doole yi soxla soxlawoo te duñu leen ko jox ñaar yooyu moo sabab suñu ñëw safara kon ndeke tàbbik safara sabab ba mooy ñàkk julli ak ñàkk joxe joxe nag kenn mucc ci amul kenn ku mën a taxaw ne waruma joxe ndax yàlla joxuma kenn ku nekk yàlla jox na la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ittaqullaha walaw bi shiqqi tamra ragal leen yàlla doonte benn tàndarma ngeen am xiif xaaj ko ci digg bi lekk genn wàll gi li ci des nga joxe ko kon joxe kenn mënu ci mucc munoo wax ni awma ma du ma joxe déedéet même boo amul yonent bi nee na yàlla na yàlla yërëm waajoo xam ni nit ñaa ngi génne di joxe moom amul lu mu joxe mu jël sémmiñam walla mu jël jaaseem dem ba ca àll ba xool matt yi gor dajale takk yenu ñëw ci marché ba jaay ko jël xaalis bi sarax ko ñu néew doole allahu akbar kooku lan la saraxe dafa saraxe kàttanam ak am amam su toogoon rek ni awma <coughs> pexe bi mu am am na ku ko amut ku néew doole ku amut pexe mënut am na handicapé bu ko mënut waaye doo toog rek nga ni mënuma déedéet bu dee maçon nga demal demal nga manœuvre li nga am nga génn ci tuuti nga joxe bu dee menuisier nga demal bu dee amoo métier demal nga gas wala nga def dara wala nga jaay matt nga joxe loolu lu rëy la te exemple bu rëy mi ngi nii sunu kanam Ali ibn Abi Talib di rakk yonente bi yonente bi yar ko sallallahu alayhi wa sallam dénk ko doomam Fatima te Aliou amul xànc ak morom ma bi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam gisee xawmu Mudar ku bëggoon joxe la bëggul ñu ñàkk saxaaba yi ñëpp di indi ku nekk di indi Umar ibn Xattaab Abu Bakr Abdurahman ibn Awf Ousmane ñoom ñëpp Ali ibn Abi bi ñëw ba ci yonent bi sëgg rangoon ñu tuuru mu ne ko man day bëgg naa joxe de ñiy joxe gënuñu maa bëgg a joxe yonent bi ne ko demal nga uti pexe Ali jël jaaseem dem ci àll ba gor ay mat ñëw ci marché bi jaay ko indi ko ca la yonent bi waxee am na dërëm bu gën a rëy valeur million amna deureum bu upp million valeur lan motax ndax borom itte lako ko ak ragal yalla ak dogu motax ñu né joxé kenn muccuti amul kenn ko mucc ki gëna nay nak moy bi ñuy joxe nga man man man lu am ci man la wara yam yem julit du doxé non julit day doxé solidarité et partage 1000 francs bi nga yoré gani na génné 500 bi joxé 500 gani na génné 250 bi 100 francs gani na génné cinquante franc bi xoolal misaal bi la yonent bi jox doomu tàndarma benn benn yonent bi nee na ragalal yàlla ci benn bi nga koy lekk yow donc waaye xar ko lenn li nga joxe allahu akbar yonent bi bu ñëwoon jamono bi dana yéemu ci ay nit yu am mais boo waxee ñu ne noo ñun waruñoo joxe fekk loolu ñàkk am ak ragal yàlla ci xol la moo tax ñi duggoon safara njëkk ñàkk julli moo leen fa dugal léeg-léeg nga dégg waxu olof baat bu doy waar bu très dangereux saraxe àjjuma yelwaani gaaw duma ko def déedéet loolu waxu olof bu bon la baat bu kenn waru ko wax nit saraxeel àjjuma même gaaw boo yelwaani nga dem yelwaani yow miy yelwaan war ngaa saraxe ndax boo yelwaanee lu am lu ëpp li nga am génn ci joxe waaye di yelwaan di dajale di defar di defar di defar di defar te am lu lu gën a sonn kon buggoo bokk ci ñi ragal yàlla mbokk yi kon. wàllu wërsëg laa sakk tollowul nit ñi yemuñ ci waaye yàlla mi séddale xam na li tax mu séddale moo tax borom bi jël responsabilité am ne nahnu qasamna baynahum maichatahum fi lxayaati dunia wa rafana baadahum fawqa baadin darajat liyattaxida baaduhum baadan suxriya suuratu duxruf borom bi ne man yàlla maa séddale xéewal yi maa séddale wërsëg yi ci àdduna maa leen séddale ñii am lu bari ñii lu yem ñii lu tuuti ñii amuñu dara waaye yàlla ne ni ma séddalee wërsëg yi laa séddalee daraja yi daraja yi tolloowul dama ko def nag ngir boroom daraja yi féete nii ñi amul daraja féete ne ma xool ndax ñi am daraja danañu ree ñi amul daraja ndax ñi am danañu xeeb ñi ñàkk والله بروم بي خامنا لول تاي امنا نيو ام ني نياك رك لا نيو خيب دنج لين دي خيب با دونو بوج ني دوجو سين كير دنج لين دي خيب با دونو بوج ني دوجو سين سال دنج لين دي خيب با دونو بوج ني توك تي سين كاتامبي اك سين ما يالا دافا جيل ني داف لين بريزيدان موي دراجا ني مو داف لين مينستر موي دراجا ني مو جوخ لين خام خام موي دراجا ني مو جوخ لين ام ام موي دراجا لول ليپ نك borom bi daf ci mbaalee ñi mu jox te xamuñu borom bi boo gisee kuy tiitaru ci wërsëg xamal ne ku dof la fan yi maa ngi gis benn jigéen bu dajale ay xaj man xëy na naan am na bay jënd ay xaj mbokk naka la jullit di demee di jënd ay xaj te koñ bëgg a dëkk am na ñu fa añul am na ñu fa reerul waaye nag alal bu jaarul ci yoon lu neex borom la jële léeg-léeg nga gis nit jënd xaj daanaka ba ay 20 millions di wanewu ni man lii laa jënd te wallahi mbokk deretam bu ko jege mi ngi bëgg saako ceeb mu tëkk wallahi ladi laa ilaha xayr mbokkam bu ko jege mi ngi am problème location fayalu ko ko te bokkam te bëri na tey gis naa milliardaire boo xam ni milliardaire boo xam ni jarbaatam lenqe jarbaatam lenqe rakkam bu topp ci moom ki mu jur dafa ñàkk ñàkk moom jëkkëram te fu ñu dugg ñu génn leen <coughs> te moom dem na ba tabax ay cité jox ay nit di di di dimbal ay cité bàyyi noonu la àll xëy na la tax defu ko mooy dafa bokkul ak moom jubluwaay moo tax waaye islam du xoole foofu kon yow mi am bul rekk ñàkk surtout jigéen ñi bu leen ko def bul rekk ñàkk bu ko xeeb tey yow la ëllëg mën na doon moom ndax ay ayyaamu nu daawiluhaa bayna naas motax borom bi neena li yattakhiz ba'dhum ba'dan sukhriya ngir mu xol ñi di reetaan ñi ngir wërseuk buñu am wala xéewal biñu am yow mi yore boutique ku wara joxe nga gennel yow mi yore magasin ku wara joxe nga gennel ndax yow mi yore magasin ya wara ëppulé li ngay jox borom boutique bi ndax ya koy fournir waye borom usine bi mo la wara ëppulé joxe nak mi ngi delu ci xol bu oyof ak ragal yàlla ki la gën a ragal yàlla gën laa xam yàlla moo la dàq yëkkati joxe mbokk yi jullit day su woomlee sant day nekk xéewal yàlla nañu yàlla may ñu woomle su ñàkkee muñ loolu da koy dimbalal dimbalal yàlla ndax nattu yàlla la yàlla du ko teg lu dul jullit mbokk yi bokk la ci yërmande yàlla ci miskin yi ak fuqaraa yi mu daggal leen àq boo xam ni dafa war ci borom alal yi borom alal yi yàlla dafa teg ci seen kaw obligation at mu nekk ñu saytu seen alal génne ko génn ci li ñuy woowee azaka waaye borom bi newul ci azaka rek ngeen war a yem kiy joxe azaka loolu wareef la waaye lii gën a rëy azaka gi ngay joxe lële wareef la dañ koo waral ci yow mooy ngay génne lu dul azaka di ko joxe loolu lu rëy la parce que loolu mooy naafi la azaka ji farata la dalaa war waaye ngay génn di joxe ci lu dul farata loolu dafa gën a rëy sax def farata gi kon mbokk yi loolu laa wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na borom bi day dafa tànn ñi am ne leen nañu fexe ba li ñuy am ñu koy séddale ndax ñi amul mën caa am ndax loola defar seeni xol defar seeni jikko muy bazlul maaruf génne di def njekk di dimbale waaye was sadaqatu alal muhtaajin di sarax di dimbale ñi nga xam ni dañoo soxlawoo lool lool yàlla day digg na ca fay mu kooma woom ngir ñay dimbale loolu lépp nag bu amee la gën a rëy mooy weeru koor mu leer la ne yow danga xiif waaye miskin bi daa xiif yow am nga loo yaakaar a ndogoo am na foo teg sa bopp balaa ndogoo jot plat yi tege bool yi tege assiette yi tege lépp tege ndax am nga moyen bi lu dagan la mën nga koo def waaye ndax yaa ngi bàyyi xel miskin bii woor comme ni nga wooree dog jot mu gestu amul lu mu jox njabootam ndax kooku yaa ngi koy bàyyi xel te yow leer la ne boo ndogoo day des boo reeree mu des nga génne sànni am na koo xam ni ni nga xiifee la xiifee borom bi daf leen a mosal xiif di xool ndax solidarité dina am ci yow mi denc xalaatal borom kër gi ñàkk nga xamni bu gesto xol ay domam xol këram ni keur gi sëngeeme mu xol ay jabaram ñu sol lo xamni amuñu pexe waye gënalu leen mu xol ay domam gis ni hum jiya la yajidu ma yasudd jaw'atuhum doom yi xiif amul lu mu leen di jox ñu lek wa marda laa yajiduuna man yuaalijuhum ay doomam feebar amuñu ku leen faj kam min madinin adhaqa daharahu siqala dayn bëri na borom bor boo xam ni ñemewul génn ñemewul dox ndax ay bor ndax yow mi am alal yaa ngi xalaat kooku xoolal ki nga xam ni nit ñi dañuy nelaw guddi gi du mën a nelaw bët yi du nelaw lan moo tax parce que amul lu mu xëy jox ay doomam bu 4 heures di jot mu daw génn bu 4 heures di jot mu daw génn lutax munul nelaw ndax xelam mi ngi dem ci njabootam ana lan la leen di jox ñaata miskin la aduna xatti ci ñoom hatta iza daqat alayhim al ardu bima raxubat suuf xat lol ci ñoom ndax ñu ngi yore ay boru luyaas amuñu luñ ko fay ñu ngi soxla ciep soxla diwlin soxla sulu lu seeni njaboot lekk amaan na mu am ca ñu gàtt xel ba loolu yóbbu leen ñu def lu daganul yow yow mii dimbale da nga leen war a dimbale ngir dox seen diggante ak def lu bon kii ñàkk ba amut pexe ñàkkam seytaane mën na caa jaar ba mu jël alalu jàmbur ba mu triyande ba mu nexe mais yow mi am boo génne jox ko tëjal nga ko buntu lu bon buntu lu bon loolu nga ko tëjal yàlla dala cay ubbil ca côté ga buntu bu baax te mooy buntu àjjana ñaata miskin ñooy tëdd seen xol di jooy seen bët di taa seen rangoon di tuuru boo leen xooloon ne lan ngeen di jooy duñu xam lu ñu lay wax ñaata ñoo ñàkk ba seen ñàkk nar leen a yóbbu ci ñu weddi borom bi ndax dañuy dem ba jàpp ne yàlla boolewu leen ci boppam fekk ñàkk xam la moo ndax du ngeen yëkkati ndax ñooñu seeni bunt bunt yi seytaane nar a jaar mën a tëju mbokk yi loolu jullit noonu lay xee xoole te yooyu yëpp dimbal nag buntu àjjanaa ngi ci mbokk nañ leen jàngat yonent bee ñu nettali sallallahu alayhi wa alihi wa sallam xadis bu daw yaram ñu àndandoo jàngat ko benn jigéen ci banu Israil la jigéen ji prostituée la woon mooy ñiy jaay seen bopp olof moo koy waxee noonu ñii jaay seen bopp maanaam jaay seen cër ngir am ci dara loolooy métier ndaw si fi mu dëkk ñépp xeeb ko ñépp xeeb ko lan moo tax ñu xeeb ko effectivement ku jar a xeeb la ndax jaay boppam daganul dafa xaram mbokk yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ndaw si ku mën mooy yàlla la nee na benn bis ndaw saa ngi dox naaj wi tàng jër ndaw saa ngi mar di wër fu muy dajeek ndox muy dox ba ci buntu benn dëkk xam nga dëkk yu bari bunt yi day am teen ndaw si seen teen bi waaxu daw bi mu ñëwee mi ngi fekk baag baa ngi lonke waaye ma nga fa fekk benn xaj bu mar bay yalkat xaj bi mar naa mar ba bu yalkatee yuut di génn ndax mar xaj bi di wër teen bi doon xool ndax am ay poto poto yu mu tàllal làmmiñam mos ci amul dara foofoo ngi wow kong ndaw si ne wallaahi ma dal moo dal xaj bi mar moo ma dawloo ba ma ñëw fi xaj bi dafa mar ndaw si ñëw mën mënee baag bi ba jukki ndox daa naan ba xol bi tooy xel mi dal lépp dal ndaw si xaj bi ñëw ci wetam di téen ko nii di ko xool ndaw si jël baag bi di sottil xaj bi xaj bi di naan xaj bi naana naana naana naan ba doyal xam ngeen yonent bi ne wa fi kulli ratbin sadaqa nee lépp lu tooy sarax a bunit ci bu nit maree nga jox ko mu naan sarax la su xiifee nga jox ko mu lekk sarax la bu soxlaa nga dimbale ko sarax la ci lépp nag même melentaan bi soxla mu lekk nga jox ko picc bi soxla nga lekk mu sarax bu rëy rëy la mbokk yi xaj bi di yalkat ndox ndaw si jox ko mu naan ba màndi xool ndaw si ndaw si xool ko yërmande na ci ne allahu akbar man de ndeke ma dal moom moo dal xaj wii waaye yërmande moo jàpp ndaw si xoola prostituée la de mooy kotu yàlla la de mais am na xolu yërmande am na xol buy yërëm j'imagine bu doon yow bi amul xolu yërmande xeer nga koy dóor foofu aca is demal sa xel du la jàngatloo ne ndax ki taxaw ci teen bii war ngaa xam ni soxlaam naan la même bu dee yi ma waaye yërmande jàpp na ndaw si innaha rahmalati askanaha allahu fi l qulub yërmande bi yàlla def ci xol yi bi ndaw si nandale xaj bi mbokk yi yàlla subhanahu wa taala ci yërmandeem bi mu jël jël ca tuuti séddale ko yónni ca muhammad ngir yërëm xeet wi ne wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin yow muhammad li tax ma yónni la mooy nga yërëm jàmm yi mbokk yi ndax sunu xol yi ñu ngi koy ubbi di yërëm ñi ñàkk ndax ñu ngi ubbi suñu xol di yërëm ñu néew doole ndax ñu ngi ubbi suñu xol am yërmande nit dafay am xolu yërmande ndax yonent bi yàlla da koo yónni pour suñu sunu yërmande yàlla subhaanahu wa taala ne sabab bii ndaw si def ba may xaj bii mu naan amul woon pexe xam nga ni su neexoon yàlla xaj bi naan su ko neexoon mu taw xaj bi naan waaye dafa am yoo xam ne yàlla da koy def bi ko seetloo ay jaamam ndax ñu ngi góor góorlu yàlla nañu yàlla may xolu góorgóorlu ak yërmande bi mu ko defee borom bi subhanahu wa taala ne jéggal na ndaw si min fawqi sabi samawaat ak li ndaw da ci def bàkkaar yépp mais geste bi mu def geste de bienfaisance bi mu def moo tax yàlla joggi ci loolu xoolul la ca des su ko neexee moom moo tey laa ubaali xafartu la ko wala ubaali maa maa tey maa la baal loolu la yàlla wax lu ci nit mën kenn mënu ci dara yàllal ban sabab la yërëmee ndaw si ndaw si yërëm bu mu yërëm xaj bi xolam tooy mu may ko mu naan xaj bi naan ba mandi lisaanu xaali xaj bi mi ngi ko naan jazakillahu xayra xaj bi boo ku xooloon xolam mi ngi naan ndaw si yàlla na la yàlla fay yàlla na la yàlla yërëm yàlla na la yàlla jéggal loolu mbokk yi borom bi dajale ko ci sababu nandal xaj fa kayfa ki fekk ku xiif nga dimbale ko fa kayfa ki fekk borom kër bu amul lu mu lekk nga dimbale ko fa kayfa ki fekk ku amul lu mu sol fa kayfa ki fekk ku am bor kayfa kayfa kayfa kayfa ki xaj taxa dem àjjana moo ndax nit mënta tax nga dem àjjana question bi mooy waaw waaw ki xaj taxa dem àjjana ci jëf ju baax benn jëf benn guddoo may xaj bi mu naan yàlla sabab ci loolu may ko àjjana xam nga ni boo ko dee def te yàlla tax ci jullit ñi insha allah yàlla da lay yóbbu àjjana moo tax mbokk yi ar rahma rahma yërmande dafa baax ci xol day tooyal xol day defar nit mbokk yi nit dina am yërmande bu bu seetaanoon film bu daw yaram mu jooy nit dina am yërmande bay ñaan yàlla di jooy ngir yëkkati lu mu joxe mbokk jullit bokk na ci taari islaam mooy itaamu taam wal ihsaanu ila al aramil mooy di joxe ay lekk ak dimbale veuve yi veuve yi mooy ñi seen jëkkër gaañu bàyyee leen ay doom amuñu borom kër wala ñoom borom kër bu néew doole nga dimbale ko moom ndax soxla na li moroomu jigéenam ñi soxla doomam yii mu yor soxla nañ li mu soxla mbokk yi loolu lu mat a bàyyi xel leg leg nit ñaanal la ñaan boo xam ni wallaahi sa xol day sedd lii may wax allahu yaalam wa yashad maa ngi koy seede ci benn anecdote boo xam ne man la dal benn soxna bu jógee dëkk bu sori dëkk bu sori yore ay doom di laajte di topp di dox di dox di dox ba ñu tudd ko sama tur mu ñëw egg si ci man soxna si luy soxla bi ñii samay doom lañ seen papa dafa gaañu mënta àggale wax ci ñu ko àggal wax a wax jooy jooy jooy man ne ko est-ce que c'est sûr seen papa dafa gaañu mun naa man ne ko ana bulletin de décès bi ne mën naa koo indi mu dem indi bulletin de décès bi ma xool këyitu xale yi ma xool lépp correspondre ma ne ko wax nga dëgg mu ne ah ma ne yëkkati xaalis jox ko ne ko dellul demal ñibbi xale yi dinaa leen téye yar leen fi sabilillah ndaw si jóg xaw a muuñ ma tooñ ko ne ko ñaanal ma mu ne wallaahi duma la ñaanal rek jooy wallaahi ku mën ana borom alal yi ana borom am am yi ana borom mën-mën yi mbokk waxuma ko ngir yëkkati mbagg de wallahi yàlla xam na ko wallahi ladi laa ilaha gayru su ma xamoon sax duma ko nettali ndax lu ko ëpp yàlla ngi may dimbali ma di ko def wallahi ladi laa ilaha gayru gone yi toog fii ci daara ji ngeen jàkkaarloon nii ñi ci seen xaal ku ma doon nettali bis bu nekk da nga yéemu ci yàlla trois quarts bi yëpp ay miskin lañ ak i jirim waaye ñu téeleen te yàlla tax loolu xëy na moo tax yàlla dañu dimbale ñu mën leen di leen dundal fi sabilillah di leen jàngal gis nga loolu li ci nekk kenn xamul nu mu toll moo tax mbokk yi suñu xol yi nañu koy ubbi ci di dimbale miskin yi jirim yi veuve yi loolu la borom bi soxla ci ñun waaye rawatina jigéen ju jëkkëram gaañu amul borom kër amul ci lu mu jàkk yonent bi ne assaai ala al armala wal miskin kal mujahid fi sabilillah wa kal boo ko mën a takk takk ko jaamu ci yàlla ndax lu mu bon bon boo ko takkee dina am fu mu dugg dina am fu mu tëdd dina am lu mu sàngoo dina am lu mu sol su ànd ak doom dimbale ko ca ndax doom ji ki gaañoo ko jur bul ni mukk duma takk jigéen yore ay doomam loolu waxu ceddoo la ndax pa baay bii gaañu ndax yow xamoo kañ ngay gaañu ñi nekk sa ginnaaw nga jur leen ñoom nan la kon boo jaamoo yàlla ci ndaw sii nga jaamu yàlla ci moom takk ko te yàlla tax ngir tee ay doomam bul xool leneen loolu rek yàlla mën na caa yóbbu ndax borom bi yóbbu na àjjana jigéenu jaaykatu boppam ci xaj bu mu nàndal kon boo dimbalee nit kenn xamut loolu nga jëf ni mu toll mbokk yi bokk na ci nga dimbale ñi néew doole fuñ ko gën a soxlaa <coughs> nga taxaw ca kon mbokk fexeel ba fekk rangooñu ñu néew doole fexeel ba toj seen xol yi doon jooy fexeel bala nga am nga di ko xool di ko saytu nga di ko xool di ko saytu loolu lu mat a bàyyi xel la lu mat bàyyi xel fexeel li ngay am nga xool na bu lewee nga joxe ca incha allah sa borom bi dina la dimbali te billaahi bëri na bëri nañu bëgg am buntu joxe moo leen di tax am mbokk yi jëm dañu koy génne dañu koy génne abi muusa al ashari nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ala kulli muslimin sadaqa na jullit bu nekk war na ci yow nga sadaqa mooy la ma njëkkoon wax sànq ala kulli muslimin sadaqa ne qala araayta in lam yajid ne yonent bu waaw ki ngay wax mu saraxe bu amul kon tontul na la yow araayta in lam yajid julit bu nekk war naa saraxe waaw ki amul nag yonent bi ne yamalu bi yaday fa yanfau nafsah wa yatasaddaq ne liggéey dara ci loxoom jëriñ ci boppam saraxe ca mooy lama ma la waxoon demal nga gormat mat waaw demal nga journalier wu demal nga def dar nga sadaqata qaala araayta in lam yastati mu ne waaw waajooju bu munul métier amul lu mu liggéey lu ma def xaala qaala yuiinu zal xaajal malhuuf mu dimbale borom aajo bu jaaxle te xamul lu mu def bokk na ci fu réer nga dimbale ko ku ñëw di laajte nga dimbale ko ku soxla même nga ñëw baleel ko wala nga ratool ko wala nga dimbale ko loolu lu mata mata bàyyi xel la daara ji bi ma koy samp am na kenn ku ñëwoon gaañu na aleyhi rahmatullah du ma ko fàtte mukk mukk mukk bi ñëwee fii dara new fi jàkka ji ngeen toog tey ay ñax la woon bësës sës fii wallahi kii seede la ci bokkoon na ci ñuy ñëwoon def nañ fi ay fan waa kër gi di jooyoo ñemewuñ toog diggante fii ak fee kenn mënut a toog jaan dañuy bëccëg bi dinañ rey lu ëpp fukki jaan ak juróom benn waay wallahi ladi laa ilaha xayru saa bu xëyee ñëw day dem gori ay ay ay ngeer yett ko ñëw di defar sàkketi fii allahuma arhamhu su ma ko waxoon ne ko Touré li ngay def coono la mu ne oustaz du ma seetaan njaboot gi ay jaan di leen màtt awma lu ma joxe mais mën naa uti ay sàkket ñëw sàkketal la diggante bâtiment bi ak bi dé ñëw sàkket ko demaat diggante fi ak fi sàkket ko gaañu na yàlla na koy àll yërëm jékkal ko lawum arhamhu ya rabbal alamin yuinu zal hada al ma'ruf dimbale abu muusa mu ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam araayta in lam yastati qaala yaamuru bilmaaruf wa yanha anil su fekkee ni yi nga wax yépp mënu ko mun a nay digle lu baax di tere lu bon abu muusa mun a yonante bi araayta in lam yafaal su diglewul lu baax terewul lu bon qaala yumsiku ani shar fa innaha sadaqa na tee jëfam du ñaaw bañ a def kenn lu bon ndax loolu sarax la sarax bu rëy la fexe ba doo lor kenn sarax la اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت قوموا إلى صلاتكم واغفروا